àjjana sëñ Tuubaa faggul nañu ko te ñun ñi ñëpp suñu àjjana leer nañu te faatooguñu ndax koo xamante ne ki nga yaakaar dafa wax ne li xayrin taxaa bil mun taxaa kullu si saxaa wayan xoo bii nax wi sayidun wasoo tuxaa boo amee nattable ci sa àjjana bis pénc xamoo sëñ Tuubaa koo xam ne ki nga yaakaar wax na ne kullu muridin bi yàllos ñasadu wa innahu min al azamu bahadu ngay wëlbati ko di jaaxle ndax di nga dugg àjjana am déet boobu xamoo sëñ Tuubaa xam ne yaa ngi yaakaar sëñ tubaa mi nga xam ne moo wax ne yonent bi jox na ko àjjana yi bani Israël yépp bani Israël kenn xamul lu ñu toll te du duñ dugg àjjana te suñu borom bi mu bindee mbindeef yépp ku ci ne dalaa bindal kër jox la ko ci àjjana bind kër ci sawara itam daal di ne bu fekkente ne àjjana nga jëm sa këru àjjana yaa koy dëkkee bu fekkee sawara nga jëm sa këru àjjana ji da lay rëcc mbooleem këru àjjana yi bani Israël rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox na ko aj addiye sëñ Tuubaa ba mu ko ko joxee sëñ lan la ko tontu da ne da ne joxaat naa la ko addiye ngir yàlla yonent mi ne ko sëñ Abdoulaye da ko nettali ci rajo Sénégal ñëpp